jëmoon ci wàllu méthodologie comme ni nga xamante ne gisoon nañ gisoon nañ ko jataay yee weesu euh, ginnaaw bi ñu gisee woon partie bu njëkk bi concerné woon xadis bu njëkk bi ak beneen xadis ak ensemble trois xadis yi toppoon ci xadis bu njëkk bi ñu ngi woon ci xadis cinq bi mooy hadis abu hurayra radiallahu taala anhu bi yonente bi saai sallam dontere ku saw ci ndox mu tag ba pare sangu euh, foofu nag ñu ngi woon ci masala yi jëmoon ci wàllu usul waxoon nañ ne côté boobu hadis cinq bi cinq quatre masala usul yër yi lool gisoon nañ li jëmoon ci wàllu bu njëkk bi moo doon an nahi waxoon nañ bii passé nahi mooy tere mooy bu charia teree dara waxoon nañ façon tere yi am ak tere nan lay tekki léegi nag mu desoon question bi ñu posé woon mooy est-ce que léegi hali hali nahyu yaqtadil fasaadu am laa mooy ndax tere buñ teree bu charient tere benn mbir day waral loolu ñu tere conséquences yi yi ciy juddoo fruit yu tere boobu est-ce que léegi dam day da day day wane ne conséquences yooyu day nuyu walla déet foofu lañ tolloon par exemple pour mu gën a leer bu yàlla teree ne euh, bu teree njaaloo par exemple est-ce que léegi boo njaaloowee am ci doom kon mooy conséquence su njaaloo bu dee doom nga ci am est-ce que yow doom jooju da koy mën a jàppe comme doom joo xamante ni dafa légal wala ñu ne la njaay dañuy tere ngay jaayloo loo moomul est-ce que léegi bu ma jëlee lu ma moomul jaay ko xaalis bi ma ciy am est-ce que léegi dama koy mën a mel nii daal loo xam ne dama ko amoon mu normal man koo dépenser bu ma neexee bu ma neexee ma maye ci lu ma neex def est-ce que noonu lay mel loolu mooy laaj bi léegi nag tere comme ni ñu waxoon ci euh, début ba euh, cours yi mooy fiqh ba wax ci walu fiq dañ dañ xam-xam dañ ko diviser en deux parties muy côté bi nga xamanteni mo jëm ci ibadat yi nga moy jaamu yalla moy ne mo ci ëpp doole mom rek la wala ñoo ci ëpp doole comme julli comme julli julli par exemple mom jaamu yalla côté jaamu yalla jaamu yalla rek la moy xam lan ñuy julli timis ndax mooy yow manoo ne lan moo tax ñuy julli timis ñett après quelque benn heure wala heure et demie wala deux heures après ñuy julli ñeent gée mooy yooyu noonu jaamu yàlla côté jaamu yàlla bi moo yooyu ñooy ñu moom lépp jaamu yàlla moo tax ñu mooy côté ibaadaat yi wala jaamu yàlla ëpp ci beneen côté bi mu beneen côté bi buñ ko waxee mooy yi jëm ci acte socio culturel yeeg yu mel noonu comme am na jaamu jaamu yàlla yoo xamante ni pour nga def ko il faut nga am alal pour def ko par exemple aj ak yooyu mooy il faut nga am alal mooy bu dee dëkkoo màkk bu dee dëkkoo ci côté boobu noonu wala jegewoo même man nga faa dëkk doo am loo demee ci yeneen ndax du du du biir kaaba gi rek lañ koy defee mais ku man googu mooy côté dañu gis ne jaamu yàlla ñu moo ëpp mooy yi ngay def yëpp yàllaa la naan defal nga def mooy ñun comprendre lañ moo tax ñuy def yu ci bari duñu xam lu tax. côté jaamu yàlla bi moo ëpp walla muy côté jaamu yàlla rek loolu mooy côté fiqh euh, bi jëm ci wàllu ibaadaat yi beneen côté bi muy muamalaat yi nga xam ne moo jëm ci affaire côté socioculturel bi nga xam ne nan la ñuy jaaye par exemple côté jaay léegi jaay mariage ak yi jëm ci yooyu nga xam ne côté côté socioculturel bi moo ëpp mooy ne boo ko defee surtout yenn yi comme ñu ne la comme mariage waa ju doon marié tey marié mais xalaatu ci yàlla yooyu yëpp tax mais nag def na ko ni ni ni mu ware kooku du pare ñu ñëw ne ko nag comme que bi nga koy def yéene woo ci woon kon sa mariage baaxul kenn du ko wax léegi nag ci fiq kii côté bii est-ce que buñ la teree liñ la tere conséquence bi day day day nul wala bu dee ci côté jaamu yàlla yi jaamu yàlla ëpp comme julli nga xam ne dañ naan la dañ lay tere booy julli ngay wax wala ngay julli di su mel ni ku nekk feneen wala di étiré wu yooyu dañ na koo tere ci julli loolu mooy ne boo defee yu mel noonu wala ngay ngay julli ba pare jekki-jekki dem fële toog def lu la neex nga ñëwaat loolu conséquence yu yàqu bi mooy lan mooy dañ naan la hé dangay ngay julliwaat voilà yow da ngay mooy liñ la waxoon dangay ngay bu lekk heure heure bi ñu la ne bul lekk fajar gi bu fajar gi xaree ba bu jant bi sowee diggante boobu boo ci lekkee lan mooy ci mooy ne bu dee dafa yàqu dañ naan la danga koy defar alors que bu dee ci muamalaat yi mooy ne man par exemple bu ma jëlee alal ju ma moomul jaay wala yu mel noonu boobu tamit dañ koy mooy ne yow ba léegi dañuy considérer affaire bi nekk donc mooy def nga loo war bi léegi nag côté mu am façon ñetti façon tere mooy yu ñuy tere boo xamante ni dañ koo tere li ñu tere almanhiyul anhu li zaatihi li nga xam ne moom dañ koo tere moom ci jëmm boppam loolu bu ñu ñëwee par exemple ci côté euh, ibaadaat yi muy comme ni ñu waxoon yi nga xam ne jaamu yàlla rek la wala moo ci yëpp comme julli li ñu waxoon mooy exemple bi ñu joxe sànq buñ la nee booy julli yàlla moo ne waquunu waquumu lillahi qaanitiin bu julli jotee bu ngeen di taxawal julli taxawal leen julli ngir yàlla tamu ngeen def ko ànd akub dal mooy wax du ci am ay gestes yu ci bari léegi mooy yow loolu dañ la koo digal mooy dañ laa tere ngay wax di ngay julli di wax léegi yow bu nee da ngay julli di wax jekki-jekki sa téléphone sonné nga jël wuyu dañ naan la yow sa julli mooy boobu boroom xam-xam yëpp d'accord nañu ne yu mel noonu mooy julli ji loo xam ne dañ ko tere ndax moom dëmm ci boppam moom ci boppam boo ko defee conséquences yi day nul conséquence yi nan lay nul mooy dañ naan la ba léegi defagoo fi dara ba léegi mooy exemple bi ñu joxe tamit ci koor gi bu ma lekkee maa ma naan dañ maan dañ naan ma yow léegi dañ koy defaat koor gi te comme que sax léegi comme comme ci mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhi nga xam ne yow yow kon yow orma ju kiiw koor gi nga nga léegi doo yem rek ci fay mais dañ lay teg ay daan mais l'essentiel fi liñ soxla moy moy né bu jëm jëmm mbir mi lañ téré nga def ko moy conséquence bi du day yàqu mooy ne alfasaad bi ñu waxon moy yaq bi day am mu ngi melni benen exemple ñu né la yalla dafa téré yalla bu téré sangal nan sangal bu yalla téré nan sangal yow nan sangara ci boppam mooy jëmmu nan sangara lañ téré sangara ci bopam lañ téré que ça soit nga jël ko di ko naan nag ngay def leneen a ci yem mooy dañ koo tere mooy ne kon man bu ma ñëwoon ne noo man naanuma ko dama koy jënd ngir keneen dañ naan la ma ne affaire bi ci boppam lañ tere nekkul ne dañ na ne tere nañ jënd bi mais moom sàngara ci boppam dañ koo tere moom lañ tere li mooy tere bi ci ci moom la dellu mbir mi moo tax loolu dañ jàpp na ko noonu njaaloo tamit noonu la mooy moom ci boppam lañ la tere boobu moom borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim d'accord nañ ne tere bu mel noonu day waral ak yàqute mooy conséquence bi moom de toute façon mu nekk fekk mu bañ fee nekk ñoo yem léegi nag mu des beneen boobu mooy première façon li ñu tere bi mu am beneen tere boo xamante ni moom dañ koo tere ndax li wasfin almanhiyu anhu li wasfin murazimin anhu lu mu waa lu mu laazimin lahu mooy boo xamante ne ni dañ koo tere ndax attribut affaire bi mooy mooy ne dañ naan par exemple ci côté bu ñëwee ci côté njaay yonent bi sallallahu dafa tere njaay moo xamante ne ni wor da cee nekk mooy njaay moo xamante ni da nga teg say pexe dara jaaru ci yoon nag par exemple comme njaay mi am na bu ñu waxoon keroog waaleykum salaam mooy comme may jaay loo xamante ni comme bi ñu wax sànq moomoo ko wala ma ne léegi yow sëñ Ndour mankat kat ab kii damay jaay ay jën mooy damay nappi nga ne ma waaw nga ne ma léegi dama damaa bëggoon cinq tonnes de façon benn jën ma ne la waaw d'accord nañ ñu si ñuñ dem nga ne ma ma ne la nag affaire bi par contre nag jën yi ñu nga ca géej ga jën yi ñu nga ca géej gi mooy dangay dem yow waaw kay demal nappi ji jën yi après yow loolu laa la jaay mooy njaay mu mel noonu dañ koo tere ndax wor la mooy yow li ngay li yow li ngay jéem a jaay premièrement nekkul ci yow moomoo teg ci kenn xamul nan la toll mooy da ngay ñëw ne la mu ci jën mu nga fee léegi da nga may jox cinq mille euros comme ça ma jaay la jën yi nekk ci géej sama partie géej gi fii wala sama partie euh, fu ma def genre benn dex ne la léegi da ngay dem lool dañ naan la njaay moom baaxul. accord waaw kay. waaw. léegi kon état yi licence waaw léegi mooy ne exemple bi ñuy joxe xam nga dañ koo joxe ci exe échelle bu ndaw. waaw échelle bu mag bi mooy boobu. mooy boobu. ndax tamit affaire yi tamit loolu la mooy exemple yi bu ñu joxe rek ndax tamit usul loolu la boo tax dañ ne woon ci début bi ñuy définir usul dañ ne moom affaire yi day joxe lu général. léegi nag yow ci lu général lool mooy yu bare nekk ci biir yow yaay mooy fa faqir bi moom mooy ñëw mën a utiliser yooyu xam ne kat lii waaw usul yi bi jox na ko nekko lii mooy règle bi moom mu xam ne kon cas bii bu ñëwee ci régle bii lay dugg cas bële même bu dee cas y règle la niroowul ak bii mu xam ne kon fii tamit lay dugg mooy ne accord pêche yooyu tamit c'est pareil ndax liñ lay jaay ñoom de toute façon xamuñ lu mu dagay tok ñu Japon Sénégal jaay pour 5 ans lol man da nek moy lim wax rek euh, Hizam ne ko la tamir ma min andak bul jaay lo xamanteni nekul ci yow jaay amul tamit quantité bi ko xam. ñaata xam. wala ñaata voilà ci tamit benen exemple moy ma tok ne voilà tabaski jot na tabaski jot na man ma nekk fii Europe yónni sama benn woo Sénégal ne leen waa ji benn boucher bu ma xam wala rek ma nekk fii sax France woo benn boucher bu nekk euh, ci ci ci ci village yi fii wala ku yor benn ferme ne ko léegi damaa bëgg nga jaay ma benn xar mu ne la wa xaru tabaski nga bëgg nga ne ko waaw mais nga ne ko nag mais na mat un naa jëm kaw mu ne la waaw mu jaay la noonu rek mooy njaay moomu baaxul ndax yow affaire bi joxu la dara na rek xar yow xamoo ban la premièrement man na la jaay xam moo xam ne sax dañuy tere dañuy tere ku tabaski moom ndax dafa am façon xar yoo xam ne kenn mënul tabaski mënul tabaski léegi benn mooy bu mel noonu tamit mooy comme exemple yu ñu joxe woon mooy exemple yu bari la mooy ne affaire bi boo gisee attribut ci affaire bi léegi foofu nag mu am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu diviser wu en deux parties mu am ñu ne cas yi ñu joxe noonu am na yeneen kaa yu bari la euh, boo bëggee lu gën a gudd mu cours bi moom ci la gënoon a guddi mais comme que tamit dañuy résumer <laughs> man ñoo ñëw tamit di waxaat exemple wala di joxe yu baree bëri mais foog naa yi ñu joxe joxe euh, aperçu di nga ci am benn aperçu ci question bi léegi boroom xam-xam rahmatullah alayhi ñu diviser wu en deux parties euh, muy maalikiye yi maalikiye yi ak shafi'iyye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne.

Euh, yàlla bu ma mayee lii de comme man may def examen walla may def leneen walla mu bëgg leneen ma ne bu ma yàlla mayee lii dinaa ko wooral juru tabaski bi par exemple yow xam nga jouru tabaski dañoo tere nga ciy woor walla juru korite mooy dañoo tere nga woor ci jour bi moom moom bii kon exemple bii da koy dugal ci exemple yu ñu joxe woon comme exemple bu mel noonu mooy ñi ci des ñi ñu njëkk a wax. moy Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanabila rahmatullahi dagn nan la yow ba woro go même boudé da nga wor ci jour bi dañuy considérer defo fi tous da sax da ngay am bakkar ndax daw dañ la tere nga wor jour bi nga ñëw di ci wor moy ne defo fi tous légui ñi ci dess moy Hanafi yooyu rahmatullahi ne ne ne non attends nañ def dank amna bakkar ga ndax def na luñ ko tere mais nak acte bi mu def kenn kenn manu koo ne affaire bi amatul amatul mu ngi mel nekkatu loolu mooy lan mooy ne xam nga ñële dañ naan la kon da koy defaat ndax par force da koy defaat ndax yaa ndax nisar day mel ni loo xamante ni farata la ci yow mooy da koy ñee nag dañ naan la noo am na bàkkaar mooy xanafi rahma mais nag du ko defaat loolu mooy loolu mooy différence ñii am na bàkkaar te ñu ko defaat ñii ne am na bàkkaar mais du ko defaat mooy ne exemple yu ñu yooyu yëpp dañ naan affaire bi baaxul léegi nag loolu mooy deuxième partie bi troisième partie bi ci yi ñuy tere mooy boo xam ne dañ ko tere ndax jëmmu mbir mi lañ tere mooy biñ joxe woon ak bu njëkk bi bii attribué la ci mbir mi liñ tere beneen bi nag mooy loo xam ne boo xam ne mulazimin la almanhiyu anhu li amrin wal manhiyu anhu li amrin mujawirin lahu mooy li nga xamante ni dafa jege mbir mi mooy par exemple exemple mooy dañ koo tere bu yalla ne subhanahu wa taala idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati ya ayyul alladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillah wa dharul bay' yeen ñi nga xamne da ngayena gëm yalla bu ñu noddee mooy woote bu ñu noddee ngir ngeen ñew julli ci bésu aljuma mooy julli aljuma bi fasaw na ngeen gaaw gaaw mooy loo doon def loolu li muy tekki mooy lu ma fekk dama koy bàyyi dem fasaw dem leen ila zikrillah wuy ji am na ñu ko tekkee xutba bi mooy xutba bi fekk ji daal julli ji mooy wooteeg yàlla bi ak tudd yàlla ji nga dem fekk ko wasarul bay'a ta ngeen na ngeen bàyyi njaay mooy ku mu fekk nga doon liggéey njaay nag cela ne ma pas dire que waa ji day nekk rek ci marché bi mooy man bu ma nekkee sama place liggéey mo xam informatique bi lay liguey yooyu dañ naan la bax ndax njaay mi man nga koy def transaction par ki internet ak yenen mais moy sam liguey sax da ko wara war legui exemple ki nga xamne day jaay moy day fofu yalla na ne bàyyi len njaay mi xam nga dañ la ko ter lol moy exemple boobu ko xamanteni dañ ne ko legui bu àjjuma heure bobu da ngaa war li buñu ñu noddee da ngaa war dem ci jumaa ji nga dem julli ji wuy ji moom bu continuer di jaay est-ce que léegi mom bu ci jaayee dara lim ci am noonu non moy ñu nodd ba pare am ben client ñew wala yu bari ñew nga ciy continuer yow sa transaction comme si affaire bi dara new ci est-ce que man léegi mbir momu ma ciy am dañ moy dañ nan dafa haram dafa yàqu wala déet lool moy premier exemple wala ma man ma ma ma ma ma ma ma sàcc ben benn kii comme ma rombu fi fekk ndoxu jàmbur ma sàcc ko ba pare julli jot ma jàpp nag di julli mooy sàcc ndoxu jàmbur ba pare di ko julli mooy julli jot ma jàpp julli wala ma romb yéeree jàmbur ma sàcc ko ba pare sol ko dem ci jàkka ji di julli mooy exemple yu mel noonu mooy ne affaire bi mooy manuma mooy pour ma julli il faut ma sol dara pour ma julli il faut tamit ma jàpp mais li ma jàpp dama koo sàcc mooy moom ma ko mais tamit li ma jàppe moom ma ko li ma sol tamit moom ma ko mais tamit heure bële na le heure boobu mooy dañ la yow yow waru la woon a sax fekk foofu ci biir magasin bi ngay jaay léegi man nekk fa man di jaay léegi est conséquence su sama jëf yooyu mooy ne bu dee kii ki nga xam ne dafa sàcc yére sol ko di julli est-ce que julleem dina baax loolu mooy laaj bi est-ce que julleem baax noonu la baaxul ki nga xam ne dafa sàcc ndox jàpp jàppe mooy kooku est-ce que kooku julleem dina baax mais tamit est-ce que njaay bi mu def heure bële est-ce baax na loolu mooy loolu mooy question loolu mooy laaj yi concerné question boobu léegi boobu mooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim muy muy cette fois ci ma xanafiyey ak maalikiyey yeeg shafiyey rahmatullah alayhim ñoom dañu ne non affaire bi conséquence bi baax na mooy ne lan kon da nga da ngay retourner wat ne kon waji satchu ndoxu jambo japp ci julli kon kon julle baax mais nak julle baax mais amna bakkar le fait que dama satchu lu moomul mais jappam ken du ko ne sa japp baxul ndax lan ndax yonent bi sallam dane rek euh, yalla du nangul ki wu ken euh, julli ken euh, ken ci yeen bu re dafa tojal fekk jappul ta japp na dafa jàpp na mënuñu ne ko sawaay yow jàppoo mooy jàpp moom am na sauf que mooy li mu utiliser pour def ko moo baaxul mais tamit julli ji mooy dañ ne ko mu muur bu dee góor fi mu war a muur mu muur sol na taxaw di julli mooy muuru na mënuñ ko ne muuruwul mooy ku ko gis muy julli mënoo ne yow yow def defoo kon julleem baax na même bu dee day am bàkkaar njaay mëne tamit def nga loo xamante nañ ko tere mooy da di nga am bàkkaar mais nag affaire bi baax na léegi Euh, xanaa bi lay rahmatullah mooy deuxième avis bi ñoom ñu ne non kooku de toute façon moom julleem baaxul mooy lan mooy bu doon dafa dafa dafa dafa demoon comme si mu nax benn waay léegi boo ko bëggee indi ci actualité comme ni mu demee yi nga xam ne mën nañoo jaar ci këyit ak lijjanti rek buñ amee gaa yu ñu xam ci gouvernement nax fexe nax gaa yi ba jël kër gu ñu moomul woon mu nekk seeni këyit def ko ci seeni këyit ñu dëkk fa léegi kooku bu dee ñu njëkk ña bu dee ñu ñu ñi njëkk a wax jumhurul ulama mooy suuf soos xam nga suuf si da koo xaraam ndax moomu sàcc terrain jàmbur def ci sa tur ba pare dëkk fa ndax lan yow yaa xam waa état bi wala yow am na ko la ci dimbali moo ñu njëkk ñi dañ naan yow de toute façon nekk gi nga fi nekk ba kera ngay dee wala ba kera nga fiy jóge yaa ngi ci bàkkaar mais nag julli yi nga fi def yëpp baax na waaleykum bu dee nag xanaa bi lay rahmatullah dañ naan la yow de toute façon jour ba nga ko sàccee dëkk fa ba jour ba nga fa génnee julli ya nga fa defoon yëpp dara baaxul ci sa julli yi baaxul mooy la mooy kon yow loolu année yooyu yëpp dañuy considérer ne yow mosoo julli mooy dafa xaram ci yow ndax ñoom dañoo naan ñu yonente sallallahu alayhi wasallam moo ne képp ko xamante ne nii Euh, da fi def da ngaa def wala nga indi fi loo xamante ni amoo ci suñu ndigal mooy dañ la koy delloo comme que dañ la koy delloo lii mooy sàcc yëfi jàmbur di ko ndoxu jàmbur di ko jàppe dañ la koo tere amoo ci ndigalu charia yenn yoon kon comme que yonent bi sallallahu alayhi nee na dañ la koy delloo kon dañ la koy delloo mais insha allah li ñu la wax ñoo gën a dëgër ndax ñee li ñu wax mooy comme ex mooy euh, dalil yi ma leen wax sànq ki nga xamante ni jàpp na mooy moom loolu lañ ko laaj yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee fekk jàppul moom jàpp na manuñ ne ko nay sawaay yow jàppoo déedéet jàpp na sauf que nag day am bàkkaar mais tamit sol na yére yu tax mu yiwam jot mooy tamit lépp jot na manuñ ko ne defoo kooku dañ naan ko ba léegi baax na mais nag yaa ngi ci bàkkaar loolu mooy ñett yi nga xamante ni ñoo considéré woon côté tere bi léegi euh, buñ toppee beneen masala bi ci topp muy masala yi nga xamante ni moo doon troisième bi mooy xujjiyatu da dilaalatu wala dalilul iqtiraan euh, mooy dalilul iqtiraan mooy dañuy am benn phrase boo xamante ni dafa am ay conjonction de coordination ay e yu nekk yuy relier soit mots yi soit phrase yi yoo xam ne ay e yu nekk ci biir est-ce que y a di relier entre soi ay mots wala ay ay est-ce que day tax par exemple mané, acte bi am Ibra ak Samba ainsi de suite est-ce que day tax mané, mots euh ak Samba bi wax day day tekki Samba tamit ñewna Ibra tamit ñewna lool que mooy e yooyu di nekk ci diggante est-ce tax ñoom ñëpp ñu bokk ay àtte ba mañ bañ man leen a kii wala bañ man leen a boole benn àtte wala déet euh, léegi dilaalatul iqtiraan dafa am ay façon ndax bu ngeen gis fii sax li tax ñu wax ko mooy xadiisu version bu kii euh, imaam euh, Abu Dawud rahma rahmatullah alayhi nga xam ne boobu yonent sallallahu alayhi wasallam dangay tere koo xamante ni dama saw ci ndox mi ba pare ba pare dane ba pare mu sangu ci ebi la kii wa waaw ak ku ci sangu mooy ne lan ñoom ñu ne mooy Hanafiya rahmatullah alayhim ci côté woowu ñoom ñoo buñ gisee ci masala fiqh yi gisoon ñoom ñoo ne affaire bi yépp la yépp a xaraam ndax lan ndax ñoom ñoom dañu tegtaloo ci li ñu wax sànq mooy ne comme que ak ku ci sangu ak boobu mooy wane ne li ñu teree bële naka nonu tamit lañ téré bi moy né individuellement séparément bo ci def ñaar yépp a bon ñoom ndax dañu bolé dañu ñom loolu lañ utiliser légui léegi nag dilaalatul ixtilaat dafa am ka yo xamante ni ay phrase la ay phrase la yo xamné bu ci nek phrase bu nek dafa complète comme bu ma ne euh, comme moy exemple bu yàlla ne euh, kulu min samarihi ida asmar wa aat aatu xaqahu yawma xasaadihi yéen mu ne boobu mu ngi mu ngi wax ak ñi nga xamante ni dañuy bay mooy baykat mu ne mbay mi ñu mbay kulu min samarihi ida asmara mooy lekk leen ci meññan mooy fruit yu li ngeen bay moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam ay pomme la moo xam loo lu man di nekk wala yu mel noonu yoo mooy ñuy bay rek ceeb ak lépp lekk leen ci wa aatu haqqahu yawma hasaadihi mais tamit sa ceeb bi wala sa dugub bi bés bi nga koy góob jur bi nga ko góobee jur boobu na nga ci génne azaka mooy dafa relier affaire bi kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu yawma hasaadihi mooy e léegi bu dee yu mel noonu la mooy boobu dañuy gis ne kon ñaari phrase la lekk leen ci bu ñoree loolu mooy première phrase mooy dafay mel ni yow man nga def point foofu waaye ngeen joxe ci àqam àqam mooy lan mooy azaka bés bi ngeen koy góob ji mooy bi ngeen di récolter affaire mu mel ni deux phrases yu bokkul bu dee loolu bu dee kaabu mel noonu cas bu mel noonu affaire bi du dëgër mooy du am doole. mooy di dilaalatul ixtiyaar e boobu noonu du am at atteem du dëgër mooy manoo ne ñoom ñaar ñaari phrase yooyu ñoom ñooy bokk àtte déedéet ndax ñépp xam nañ ne nit bu ko neexee mu bay lu ko neex ci toolam bay ci dugub wala lu ko neex bu paree du ci lekk dara mu jël yépp jaay wala mu jël yépp jox ko ay fasam walla yooyu bañ cee lekk wala mu jaay lépp te yàlla dana lekk leen ci bu ñoree mooy ne lekk boobu nekkul ne lekku faratal alors que nag bu nee wa aatu yow ma xasaad yi mooy génne leen àqam muy azaka ji bés bi ngeen ko góobee lool par force la léegi da gis ne kon lan moo tax amul doole mooy ay phrase yu complète mooy bee phrase bu nekk boo ko tegoon fële day mën a dem bu dee cas bu mel noonu affaire bi du dëgër léegi nag mu des beneen mooy boo xamante ne ni du ay phrase yu complète comme comme biñ gis léegi mooy comme exemple bi ma njëkk ko joxe nga ne oustaz ñëw na ak taalibeem bi Moodu ak taalibeem bi Sóora wala ñeneen rek